منكر جانغو ننكر منش منكر من أول منكر عديس منكر ما هو أنا متروك لين تولى دف من متروك لين ركوم عسرين قالوا المؤلف تعالى الكذب رحمه يا نكير ما الله يعلم إن متروكه ما واحد بانفرد وأجمعوا لدعفه فهو كرد فهو كرد معنا فهو مردود matruku xadisu matruk maam mooy la nga xam ne infarada wéetoo na bii ci moom waahidun kenn wa ajmao tañ dëppoo li daa fii ñeel ak lottam kenn koo xam ne borom xam-xam yëpp dëppoo nañ ne daif la neel mooy koo xam ne dañ koo tuumaal ak fen xam nga kuñ tuumaal fen kat tekkul ne wax ji mu wax fen la te borom xam-xam yi tuumaal la fen te nekkut eh, namuñ ci nga bari fen ñoom natt nañ gis na yow mos ngaa wax la dëgg rek jeex na fen yaa ngi xool ci jamono ji leen dàq <coughs> yaa dëgg bëri nañ nañ ci yow fen rek yow moom wóolootuñ la c'est-à-dire la mën naa am dëgg la gaawaay matruuk la kooku it kenn mënu koo jàng ci lopt yi ba nga xam ni tey jërul xooli sawaahid pour jàng ko la bokk matruuku xadis matruuk maa moo leen xam infarada wéetu na bii ci moom kenn mhm. wa moo tañ dëppoo li daa fii ci lotta kooku parce que dañoo nettali ci moom ak fen foofu moom kara din comme luñ delloo <coughs> maanaam mardud la daal haadaali moom alqismu alhaadi wa salaasuna mooy xaaju ñaar fukk ak fanweer ak من أقسام الحديث تقاين حديث المذكور إن تبدي بعض النظم تبلاوي وهم المتروك من حديث المتروك وقد عرفوا قبل لكم أن هذا ويكتب في قوله وهم واحد به انفرد يعني لما نم أن المتروك أن حديث المتروك هو من فرد مولى بيت النبي من واحد كان أجمع ودبون أن ينبر مصنق من على دعم في تلوتهم حديث بوخم نين رواية بفوق من جاري أنت قد ديو منام سامبرك موكو جريتي Demba te Sàmba moomu fenkat la xadisam matrub la même boo kii nettalee kay nettali ko kay nettali mu jëlee ko Demba rek kon moom moo ko wéetoo hmm? <coughs> wa damiru damir fi ajmau yaudu day dal alal muhaddisina ci bana ko xam xadis xaw na waxam foofu wa karadin والكاف كاف كذا عايزة نقول إلا من حيث معناه شي معنى فهو كرد ومدود رميد الله فالمتروك كما عرفوكم من خمل المؤلف تعرف كرد هو الذي ما حد بيخنا رواه ونطل نقو من أجلوت أجمع دبونا اللهم وبرمكم كما لا دعم في شرطم نعم. فخرج مجين بيش مما رواه ونطل نقو خير دعيف قلوت فليس لكم بمتروك بمتروك وما رواه ونطل نقو دعيف أجلوت الذي بيخنا اختلف ووتن في دعم في شرطم في تلعين في شرطم ñu ne haza kii daf daif la kii ñu ne siqa la kooku it xadisam nekkul matruk haza li ma zahaba mooy dem ne ilay jëm sama muallif taalifkat bi <coughs> kon taalifkat bi moom ni mu firee xadisu matruk mooy xadis boo xam ne ni raaw yi ba ko wéetoo jàngoon nañ la mooy xadisu fardu dégg bu ñu waxee ba ko wéetoo rek war ngaa xam lan lay namm ci fardu <coughs> moo xarit raaw yi ba ko wéetoo ñëpp dëppoo ne la moom noonu la ko xam ne وقال وانا بعض العلماء ينسى يعني برم قمقمي ومن بوكنس ابن حجر في النخبة في النخبة بطير لا نين المتروك نين المتروك هو ما روى وما يلنات النقراب أجنات المتهم بنتو مال بالكذب جفن نون في رأي المتروك ثم مثلا في مثال إذا وجدنا ابن فك في تعذيب لابن حجر في تعذيب نير ابن حجر تعذيب تير لو بخان في عندي رواة نير تلك الحديث كان كناك موحل لن يوحش موم تير لن يوحل من قوجن جكو لير ruwaat yi nettali xadis yi ñoom ñoo fa nekk ku nekk lañuy wax ci moom garaatam mooy kan yooyu lañ lay indi foofu <coughs> sans téere yooyu buñ fekkee fa waan sax ci jëmm mi ne ruwaat ci ñuy nettali xadis xaala mu wax fii ci mu ne aj moom dëppoo nañ laa dax fii ci lottam fay naa nag ñun ñu sàmmee dañuy tuddee xadis bu xadis waa jooju matruukan muy matruuk isan farada bu wéetee bii ci xadis bi bu dee moom kese moo nettali xadis boobu kooku matruuk la ñu àndoom ndax ñoom aj moom a dëppoo nañu laa daan fii ci loolu wa ida wajadnaa bu ñu fekkee fii ci moom xawloo waxam waqad tuhima tuumaal nañ ko bil kasi bi ci fen dégg nga fa nu sammi dañ koy tuddee matrukan matruk ay ren ba tey لأن المتهم من نقن تمال بالكذب جفن حديث وحديثهم كالموضوع كم موضوع موضوع موضوع سفر ينوت ولا نجزم دون دوغ بأنه حديث موضوع موضوع لا ولكن كونه وينك متهما بكن تمال bil kasi bi ci fen yun jilu day wàccee xadiisoo xadiisam ilaa darajatin ci étape boo xam ne taqur bu day jege mu ne yi ci luñ fental yonent bi sallallahu alayhi wasallam <coughs> bu dee kon matruk daal mooy koo xam ne ñëpp dëppoo nañ ne daif la wala boog matruk mooy mooy xadis boo xam ne nii ka ko nettali daal wéetoo ko dañ koo tuumal fen xadiisam doo doogu ne mawdu la waaye daal jege na luñ fent yonent bi sallallahu alayhi مال بلوت لوب كوكو كان من كوير الدين ثم قال توب مو رحمه يا نكير من الله تعالى كبر ني نيو سي حديث بن فنت لي نتي بو موي مودو مو مجي والكذب فن المختلط بن صص المصنوع بن لغي على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الموضوع مو الموضوع حديث موضوع مو فوق فوق ما هذا بوخان بين واي مو فن اي فنم نيرن تو كوخ وخي كودل يورن تو بوك اسكن يورن تريك لول موي هذا اللي هو القسم الثاني وسلاسون ما حد قالوا فنير نيار من اقسام حديث خاج حديث المذكوره تيم تدي في هذا النظم كبير واي هو الموضوع وقد عرف وقمنا المؤلف تعرف كذب بقوله تهم والكذب فن المختلط من صص إلى خبم جيح يعني لمن هو الذي مالنا خمنا استنام لجينا بعض الناس من سنيني ونصبوا ناس كنا يا نبي جمسي انت صلى آه، الله فإننا نكون نسمي إن كتب الموضوع الموضوع في الصلاة دفوق نيوني قم قم حديث وكلمة الموضوع باطل من صص hal taani ndax dañ day firi am na ulama borom xam-xam yi wadawu ñoo ko sos wala mu yulquuta seetluwuñ la ñeen ko baalan ab xel maanaam bàyyiwuñ ko xel daal aw an raawi yi wala boo ko ko nettali wadawu na ko ala nabi ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam bu nekk mën naa nekk hadis borom xam-xam mën nañ di ko wax fekk benn borom xam-xam moo ko wax rek gars yi di wax ji rafet lool bañ dem ba ne yonantu la borom xam-xam yaakaar ne yonantoo ko wax fekk déedéet ab borom xam-xam la moo ko doon wax wax bi nag wax bu rafet la nag bu dëggu bu yonentu nangu <coughs> waaye yonentu waxu ko mais nit ñi selluñ ko loolu mën naa nekk moo doon wala boog benn waaye moom bëgg a sos dara ci diine ji xamul lay mm-hmm. mu fent ne yeneentu wax na nangam pour dëggalee ko boppam <coughs> comme ni koy gisee rek dana gis ku topp waliyu bëgg sos xamul lum sos mu dem jël ci wax wàllu lu ko neex ne wàllu bi lii lay wax man la doon junj fii maay borom nangam gi di sos rek sos ci diine rek yàlla na ci yàlla sos soo noonu daan na wax ne mayam du tëgg ko fecc di musique am ci xaalis di ko dundee lu muy xaraam xaraam moom gën a lekk ci tur diine musiciens yi sax ñoo tene lekk si tur di si saraxa risala naqul dañ wax moom fi xaqiqati ci dëgg-dëgg yesmaluhuma daa leen làmboo ñoom ñaar jëmaan mboolem seen kon ulama borom xam-xam yi boo tax moom sos nañ ko wala ñun xóota bàyyiwuñ loo ñeen ko ay baanin moo doon teg na ko raawi ku koy nettali nabi ci yonent bi sallallahu alayhi wa dégg boo xam ne ni raay yi moo ko sosal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Maodo la xadis boo xam ne borom xam-xam yi ñoo bari ko askan wi yonent te la wala xadisu xadis yi al mawdaatu yu bëri la allah fa taalif na fiyaa ci moom alxulamaa borom xam-xam yi te alif ay taalif mun ferdatan yu wéet wa takkala mu wax nañu laa bandaa ci lenn li walaa wajoo xusuusi ci anam ak jagoo hadith yi nga xam ne dañ ko fent yonent bi bari na borom xam-xam yi taarif nañ ci wax ci wama ulifa bokk na ci dañ taarif hada baabi ci bi de kitabul ali al masnu'a fi al ahadith al mawdua al ali laali almasnua wuusu lulu yiñ defar ci hadith yi fent wa minaa bokk na ci alfawaidu almajmua fi l ahadis al mawdua njëriñ yuñ dajale ci hadis yuñ fent li Shawkaani moo ko defar wa minaa انفنتي لابن الجوزي إلى أن الى إن الى أن ابن الجوزي لما ابن الجوزي رحمه الله يعلم يعني كي على يرم يتساهل دفاي سجن في إطلاق الوردي في بويال أك فنتي الحديث في حديث ابن الجوزي مو حديث بلا بني يجي في موضوع ثم يكلكو في موضوع مو فلو يفك حديث بهم دائم في رك مو من موضوع لا حتى إنهم بنيهم صح ذكروا تبنا انهم مم صاحب مانغنا حديث حديث بوخنا روى صورنك مسلم مسلم في صحيح كتير بويربا وخال من إنه أنك موضوع موضوع لك إبن جوزي إن تيرب عدد بمسلم أندي نموضوع لك ولهذا لم يقال أنه لا يبرت دون فعله بوضع إبن جوزي كي وضع إبن جوزي إبن جوزي إبن موضوع جرو فعله ولا بالتسهيل حاكم دي تاكن غير لك حاكم لا حاكم دفع غير وحاكم غيرنا الحاكم نغيرنا يجرو فعله ولا بإجماع ابن المنذر تاعن دبوك ابن المنذر ابن المنذر نم دبون انت جيرو فال نرى غا واخ دبون انت لان هؤلاء نخ غاني يتساهلون دني ساغن ما ان ان ما ان ابن المنذر عند ابن المنذر تتبعته توبناكو فوجدت مفك ان اللون نيان نكو اشياء امبير مما نقل تيرم تخل فيتم والاجماع دبو ويقول ما لا نرى مقام فيتم خلاف نوتي إذا قال أبو بكر ذلك كله فقد أبرى شتل نزمة وباتم أمام ملائكة كان يا الله تعالى كلام وابن منذر نك أ آه، كوماندرا دخلنا كوي يبري يم إجماع دفن من قوم تبوتي جاين إجماع على وخ تبوه قوم تبوتي أنا واحد دك عند قوم لكن أنا نيو واحد دفن أي برمكم خمدي بقولين شفيك من قوم تبوتي إلا بقى وخ والأحاديث حديث الموضوع إن لا هني أسباب أي سبب <clears throat> lan moo tax nit di fent li yonent bi sallallahu alayhi wa sabab yu bëri minaa bokk na ci attensubu par parloo li mazhabin ñeel ngir aw li taayifatin wala kuréel aw ala mazhabin wala bëgg a dal ci kaw ngir aw ala taayifatin wala bëgg a dal ci aw kuréel maanaam bokk nga ci mbooloo sàngam nga bëgg di seen mbooloo nga dem sosal yonentu luy tagg mbooloo moom fekk yonentu waxul loolu yaa ko wax wala boo gis nga mbooloo sàngam neexuñ la nga bëgg leen a xas xamoo xadis bu leen xas nga dem fent bi yonent sallallahu alayhi wasallam dalee ko kaw ci kaw mbooloo moom yooyu dana waral nit ñi di fenti xadis par par lu mbooloo nag jaru ko aadama bu xool sa dund rek xam ne yàlla rek moo yor waaw daan naa wax ne mënumaa dund fanweeri at xaw nit xam ko tey di wéedu ci moom fanweeri at yi ma doon dund te xaw ma ko ci ci lan laa ne ko doo dund mi at xamoo benn nit xëy xëy xam ko yàlla boole laaj moom nga bëgg nag changer sa dund wala boog nga nga jaay sa ngoor wala nga jaay sa diine ndax waa jooju yow yaa ngi dund fanweeri at xamoo ko yaa ngi dund doo wéedu ci yàlla moom lay dundal fanweeri at yooyu yëpp moo tax nit boo demee ba booy bay wax waxal lu yàlla bëgg soo paree na nga am jàmm ak ñëpp ndax loolu la yàlla sant yàlla santul la ngay nekk di geer ak doomu aadama yi wala boog nga bañ leen wala nga leen wax yàlla bëgg nag Hmm? loolu la yàlla bëgg ci kaw suuf day wax lu yàlla gërëm waaye <coughs> buñ par par lool mbooloo ba tax nga wax lu dul dëgg mbooloo mu baax mu moo gis mu samp ku baax a ko samp bis boo demee boo wax lu dul dëgg pour dimbale mbooloo moomu yàgg ku baax kooku joteetu leen dara ku ne bokkoo ci mbooloo moomu gis nga mbooloo mu baax moo gis ku baax a ko samp ku baax lu baax la bëgg nit ñi di wax soo demee ba sos ndax jamono soppeeku na hmm? ndax dimbale mbooloo moom mu yow bokkutoo ci mbooloo moom xam nga la mooy màndargaay bëgg ku baax mooy nga bëgg lam rëdd ay pas-pasam nga bëgg ko loolu mooy màndargaay bëgg ku baax ak dimbale ko boo demee ba gis ñu wàcc pas-pasam ji la ñu ko wàcc ñoo ngànk affaire bi sax bàyyi leen seen mbir te yow nga nekk ci lu baax la la nga xamoon ci waaj noonu la waaye bul bañ mbooloo ba tax nga fent yonentu xadis dal ci kaw mbooloo moom mooy li nga xam ne ñu bari ñu ngi koy def ci jullit ñi jël benn ay alxuraan rek firee ko noo xam ne doonul ko ngir xas ay nit yoo xam ne ñoo la gën a ragal yàlla foofu jël ay yoo xam ne xiiféer lay wax nga daree ko ci kaw sa mbokkam jullit boo xam ne nii la muy julli julliwoo ko lam jaamu yàlla jaamu ko yàlla mën ay téeréem sax ba léegi mën a liir nga toog amul benn temps lenn def lu a déglu da nga koy xas hmm? ci koo xam ni lam ci lislaam yow taalifoo genn wàll ka hmm. lam dugal ci diine ci lislaam amaana yow kenn sax dugg ci lislaam jaar ci sa loxo ay junne junne nit dugg nañ ci lislaam jaar ci loxom tabax na ay hôpital tabax na ay jumaa tabax na ay école defar na ay boromi xam-xam mais kooku bëggoo ko félicitation mais lan nga koy xasee xam nga ki ngay xas mooy ki nga tene boo demee bu yëkkati sa làmmañ di xaste mm. xoolal koo tene nga xas ko waaye koo xam ne yow tool loo ko si cet bi bu dee yàlla liggéey lay fay wax ma loolu bu dee yàlla wax lay fay moom bàyyi liggéey ah, ah, comme ne xas leen ndax ku gën a bëri wax rek yaay affaire bi mais bu dee yàlla liggéey lay fay mais xool ku nekk ku nekk lim liggéey li ñu xam nañ ko xoolal si kaw suuf boo xoolee rek fa haadi asaaruna tadullu alayna loolu la góor yàlla yi doon wax góor yàlla yi daañu wax ne suñu maam yaa ngi nii de dañ naan ñun lii lañ fi bàyyi mhm. lii mooy wane ñun ñooy ñan ci liggéey la yàlla di fayee mais fayewut ci wax mhm. kon nag bul gis mukk la gën a liggéey nga di ko xas même bu fekkee gis nga ci moom manqué manqué sax bàyyeeku manqué manqué boobu parce que daf laa raw ba léegi mhm. yow nag demal su nga góorgóorlu def fi dara rek waaye kenn du topp kenn nag si mu lu manqué jeex na hmm? la waaye fent xadis bokk na ci li koy gën a waral <coughs> bëgg a dimbale mbooloo mm-hmm. sos bëgg a dal ci kaw mbooloo tax nga sos mm-hmm. bëgg a xaste bu mu la tax a waaye bëgg a tagge bu mu la tax wax dëgg mm-hmm. te yàlla tax mislu aali bayti ñu mu ko wax aali bayti de mooy waa kër yonent bi sallallahu alayhi foo leen tuddee tagga ca a topp waaye xaw ma ñii lu leen tax ñeme ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak njabootam hmm? gis ala bayt ala bayt danañ feneen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hmm? neel kay mis la bi sallallahu alayhi wa ñoom la waaye waa waa kër yonent duñ sosal hmm? yonent bi sallallahu alayhi njabootam duñ ñu tuuti bu dégg nga boo leen tuddee boo si mën teg yàlla yàlla gërëm leen bu ci teg lu ñaaw <coughs> fa inna raafida naka raafida yi xam nga ñëw si waxtu fent addi nag wax dëgg yàlla kenn xamul noo ko mën a jàngatee fa inna raafida naka raafida yi dégg la mooy chiens yi nga xam ni ñoom ñooy fent hadis hmm? xam nga lislaam dafa am ñu ci dugg bàyyi daan wax ne chiens pas-pas yow la loolu la bàyyi wax nee na bëri na yëngatu koy gis ci lislaam mu ñaaw lool hmm. ñu dul jullit ñoo ko dugal ci biir ji diina ci mais bokku ci hmm. yahud yi ñoo dugal pas-pasu hmm. ne yee dañuy teqal diggante saxaaba na ne ñoom dañuy jàppale imam ali ak waa kër yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ci kaw abou bakar omar mais ñooñu benn lañ <coughs> ñooñu amuñ problème ba créé ay problème yu bari ci lislaam ñooñu nag mën nañoo fent hadis ne dañuy tagg Omar dañuy xas Aboubacar dañuy def nangam mais waa kër yonent bi defuñ loolu defuñ loolu bu leen téere yóbbaale de ñu ay nit kese lañ ak zabu naas ñoo dàq feel li ñu la rasulullah ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam <coughs> li àndum ndax ñoom laa seetoon duñu àttan añ yore wijoo ñu jaral mazabum seen ngir illaa bil kasib lu may ci fen mooy raafida yi xas Abu Bakar moom ñoom it lu bon la ñuy def li ngir ànd mazabum nag seen ngir baatin neen la kama zakara comme ñu tuddee zaakiro Cheikh Islam rahimahullah yàlla ko yàlla yaram anum ci ñoom nee na ñoom seen ngir neen la hunaaka am na ahadis u hadis kaseetu yu bëri ruwiyet nekk nañ ko fi bani fi zammi bani umaya ci xas banu umaya xam nga banu umaya boo leen xasee tamit def erreur ndax Muawiya di ci la bokk Muawiya saxaaba bi yonent la Ousmane ibn Affan koo gën a baax ci Banu Umayya bokk Omar ibn Abdul Aziz xam si xulafa fan la <laughs> doo jël benn giir démb nga xas leen <coughs> moo tax addis yooyu xoolaat la waaye nag am nañ ñoo xam ni yàq nañ ci lislaam lu bëri bàyyi nee na Zeydu doomu Muawiya Muawiya saxaaba bi yonent la Zeydu doomu Muawiya la bàyyi na Zeydu ñëpp dëppoo nañ ne ku bon la waaye Muawiya nag moom waxu ci lu ñaaw ndax saxaaba la hmm? bàyyi ne benn fóoti nee ne benn waay rek moom musa jagloo ndax dafa ne loo wax ci Muawiya ah? mu ne ko waxuma ci dara lu ñaaw mu ne loo wax ci kii kon maa ngi wax Zayd Yazid laa wax Yazid bu Muawiya ah. loo wax ci Yazid doomu Muawiya waa ñu ne ko rëbb naa ko rëbb ko rëbb ku ko bëgg mun ah, xam nga ne maam bëgg na doom jéem waa ji gàtt <laughs> waa ji gàtt ko bëgg mun nga ah, mbaa xam nga ne maam yow bëgg na doom ji mu gàtt bàyyi nee na benn fóori daan na wax ne kenn rek moom mos a gërëm waxuma bàyyi moom wax ne kenn moom mos a gërëm dafa ne fóori bi loolu la wax pour wan ne la yéen it man on la ku ñu rëbb la ku bon la. Hmm? yàq na ci diine ji lu bëri bëri bëri ci daal ni doomu ku baax la mais bàyyam moom kenn ñu mu ko wax dara xool wéy rek lañ ci am ndax saxaaba la hmm? hmm? waa ak sara man wadaa lépp ci hadis yi ñu teg ci xas banu umaya ñu ko teg mooy raafida yi laana banu umaya kaana nekk na baynam seen diggante ba benn ali ibn abi talib xurubun ay guerre wa fitanu ak ay fitna waaye nag kenn du imam ali moo tax gars yi ñi ngi wax Aboubacar moo gën teg si Omar teg si Ousmane teg si imam ali boo demee ci Irshadaat Rabbaani bu Cheikh Tidiane nee na moom du teg kenn ci kaw imam ali man la ko bëggee woon moom du teg kenn ci kaw imam ku gën a ali daal moom nangu moom nag moo xam wali yëpp parce que moo leen roose bu ne imam kenn du moom rek kenn du moom waaye saxaaba yëpp ñu baax lañ kenn du leen séparé moo tax ba léegi ñu bëgg tasaare mbon dañuy fekk ñu baax ñu créé noonu seen diggante yoo xam ne ñoom ñoo ko créé di wax rek ay nit buñ dëkkee foo ñoom ay histoire loolu mënul ñàkk ci doomu aadama yi nit nit kese la بفكون نيني باخ ني نيامي سواري الله وانا وانا زانا ما في صدور من غل اخوانا على صدور متقابل من ان بي نيكون سي ديغنتي ني باخ ني بو يوم القيامه بلا ما ندوال دي دي ان بوب كين كو نيك داغا جابلو سو مونوم ما دي نيكو نين جاكارلو سي لالي كون موي ني داغي غيس ني باخ ني خو داغي ديم باديت ني نيو جابلو انت دارا مي تيو لا نيك كو باخ يوي لا نيو بون ني دي ديل دي تساري ها دي كريي فتنه سين ديغنتي اك اي نانغام بور ياك اي صحابه ني باخ لا نيون نيت كيس لا نيون <coughs> والموضوع عليه موضوع مردود للعقل وتحدث به ناتل لك حرام ولا حرام لا إلى أن من يتحدث به لما يكون ناتل من أجل أن يبين غير مليرا أنه موضوع لنفنتنا فإنه أنكم يجب عليكم أن يبين ملير ذلك للناس يعني بلنا نكون ناتل لنجل ليرا لن موضوع لغانا وودو حديث فين حديث لا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب مي بوك سي بكاري غينا مك مي خول النبي غير وخي النبي صلى الله عليه وسلم من كذب كفن عليه من متعمل لاجي تاي فيتبو انا بربار مقعد توغو من النار سفلا وثبت صحا عن جي سي انتي قال وانا من حدث كو وقتان اني من بحديث انتي وقتان يراد اني غيس من كذب فن لا ويراد اني غيس انوني حديث بو كذب فن لا فوم ما عاد الكاذبين كن لاس نياري فن كدي كيكو نتري فن لا يومي كو تخلال كو فن ki ko sos fenal la yonent waaye mi ko nettali fen kër moo tax hadis Maodo kenn du ko nettali te xam ne Maodo la lu ma leen lay jàppee fen kër hmm? léeg-léeg nag hadis ñu la fekk lu wér la loolu leeral naa ko bataay nga maa nga hadis na hadis yi naa si ñeen nit ñi wootu béyoon nga leeral loom ñeen la andoona Maodo moom luñ fent la wa makzuum luñ fen la nabi si yonent sallallahu alayhi wa sallam fala buta duma ñàkk an taskuroo nga tudd ko bi sixati tamrid yi ci tëgginu feebarloo hadis bi mooy xii la waxeef nañ loolu foo fekk borom xam-xam ne waxeef nañ wala yurwaa nettareef nañ wala yus kër tuddeef nañ xamal la dañ laa bëgg wax ne lii ñuy nettali nii lu lott la wérut wana wi daara bi mel noonu waaw mu ne xaala wax na rasulullah kooku jësmu la dogu la li koy daa tan ci boobu bu ko askane yonne bi jëm si yonent bi salaa sallam bi seexate jësmi ci tëgginu dogu li am na woon ndax moom in fanal te boo defee zarik loolu aw xanta da ngay tàbbiloo asaami aji dégg ji fil ihaami ci lëntal wala xaala rasulullah salaa sallam dafay yaakaar ne yonent wax waaye bu ne xii la waxeef nañ de وليروى نتلف نن يذكر تدف نن جرى خمنا لي دوي وخيون تبي صلى الله عليه وسلم سؤال دارهم جاو دوغو وچمو لو ما يسيقه تمريد ومن الأمور المهمة بوكنا تنبري أم صلى الله عليه وسلم ينبغي لنا يلو أن ننبه أن يؤيت على يتمم ما يفعل المهور المهدف أشخاص مصدري في تفسيري في تفسير تفسير من تفديري تي كوماس غي كوماس اسورت صار التي خامني يفسروا هذا نكو فيري او ختم او دينغا أو ختمها ولا متجيكو بأحاديث إن أحاديث دعي فتني لوت جدا لول أو موضوع تقول إن فهمت سا في فضل تلك السورة تشيني ريو إلى سار منين سمخ سري تفسيرم بوي بسار من أن حديث بري واسين غير سار بي بوي جيخ سار بي أن حديث بري واسين غير سار بي فك حديث بين غير سيوي باحنا نلاير الكوكو نخمكو ولكن لا وايا الله يسر يومبل للحافظ نيال حافظ ابن حجر رحمه الله نكاليرم فخرج مجين أحاديث التفسيري xadiisu tafsirul kachaaf li Chamaxsari téeréem bi noonu tudd ba béy na mu leer asaxee aji wér mel ne dañuy fi ci aji dootu mel ne Maodo yi ci Maodo leer na yi ci wér ak yi nekk dañuy fi nekk Maodo yooyu bàyyi ko xel bu baax bul gis ne saar sàngam am na nga neen sàngam nga wax hmm, saar yi ngeen yi ci nekk doy na jërul nga koy fental benn nga neen su ma xaatoo moo rahimahullah waxat atat dikk na moom téere bi ka jawaahir mel ni wurus jur jawhar almaknuur buñ nëbbu sa maytuhaa tuddee naa ko manzumatul bayquuni منظومة ما من نسي البيقوني بك البيقوني قولهم أتت الدمير دمير يعود نادر هذه المنظومة بلوي وقولهم كالجوهر المكنون من ورس جوهر بن نبو أي مثل جوهر كم جوهر فالكاف كاف كل تسبيه بنير لا وأتت فعل ما جل وفاعل مستتر له وكالجوهر كوك منسوب دنج كون سوى الحال أي أتت ذكر مثل الجوهر أي حال تكوني كالجوهر وقول المكنون المحفوظ بن وتو ay samtu wala jant yi waane ree ak ngelaw wala xubaar ak pënd yi hmm. fayekon mu nekk daay man du faw na daran di aji naat mushriqan di aji leer moom téere bi <coughs> ndax amul lu ko dana mën la wa xawloo waxam man suumatu bay xuuni na saba askan na ko jëm si moom laa noonu ndax moom wëla jëmay ki nga xam ne sama woy na ko su ma xaatoof moo rahimullah fawqa salaasina ci kaw fanweer bi arbayin ci ñeent fukk atat dikk na abiyaatu ay baytam summa xotti ma topp ni moo talee ko bi xeyrin ci alhamdulillah xaalu moom fawqa salaasina daar bay atat ay annaalu mën a mu atat dikk na arbaatan wa salaasina baytan maanaam trente quatre bayti la bëriwul xam nga nga xooloo xam abiyaatu mm, ay baytoom mooy trente quatre bayti la su ma bi xayri <coughs> xutimat yaa ngi lu mën a mu an abiyaatu haadin manzumati naka bayti yi la way <coughs> jaa dikk na fawqa salaasina kawe fanweer bi arbain ci ñeent maanaam quarante trois bayti la su ma xutimat topp ñu mattalee ko bi xëy ci yow وإلى هنا سيسي ينتهي إلى جيخ بفضل الله تنين تعالى كما هذا سبع بلا ليرا نصلوا نيجي الله تعالى كما أن يتقبل منا من الناس من صالح الأعمال جفي باخي آمين وأن يغفر عن مجيك الزلال الترخيص والخطاء عن جنته إنه لكم سميعون أجل دقل مجيب أجل نمو يالا والله أعلم يا ذرما يخم وصلي عند خلال وسلم يا دول المصلي وبارك يلا بارك على نبينا سيدنا إمامنا سنجد محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله وعلى آله أكملهم وأصحابه غير صحابهم وأتباعه أغي طبهم بإحسان ترفتر إلى يوم الدين بكر بسبنتي لن طب إلى بسبنتي هذا إن أريد الإسلام ما وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه ونبت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته